wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ma jóg liggéeyal Sëriñ Tuuba te sàkku ngërëm ci barke Seex Mustafa Mbàkke sëriñ baara ma la géel sëriñ Tuuba te sakku ngërëm ci barke Seex baara ci kattanug yàlla ak njool Màkka ak ña ko lay tàmbalee ci mbirum si di Lamin baara mooy turandoo xayru xalqulaahi sayyiduna salaalay la si ab daa sëriñ baara mooy turandoo xayru xalxulaay sayiduna salaalay la si ab daa sëriñ baara kattan ko jox màkkaamat la yàlla fab yu ni jagleel sëriñ baara moo fañ fab tabam bur yàlla dem baaras di soppi atte ya moom siidi lamin baara moo sañ fab tampangub bur yàlla dem baaras di soppi atte ya moom siidi lamin baara jaasi dogal jëfëkun la yàlla daas ba mu ñëw jox ko yonen ba mu jox Lamin Baara yonen ba dellu fa baat jaaseem ja daas ba mu ñëw jox Seyxi Bamba mu jox Lamin Baara yonen ba dellu fa baat jaaseem ja daas ba mu ñëw jox Seyxi Bamba mu jox Lamin Baara kiwum na làmb ja ndax bàkka moo waa jundulaay ña ngay jiinal sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñépp a nga sampub sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñépp a nga sampub sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa pii bi yàlla ñëpp a nga naan ji la bu deegul fel sampub sëriñ baara waa mul malakoot ak kursiyoog jabaroot seen atte benn la ngi siidi lamin baara fadat wa yaayiluhum wadat fa yaayiluhum wasan fa yaayiluhum xam nan sëriñ baara wasas ma yaay luxum wasan ja yaay luxum di jox ndigalay siidi lamin baara yooye malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor na sëriñ baara yooye malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor na sëriñ baara yóbba ko taawaras woon na sëriñ baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla mi ma bëggal boppam sëriñ baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla mi bëggal boppam sëriñ baara buurub jullit la ko def bu yaate ba ëllëg duniyaawu raalu